asalaamaaleykum dal leen ak jàmm seen top actu du jour ñu dooree ko génnub àdduna Chadwick Aaron Boseman doomu Amérique boobu juddoo ci atum 1976 si bésub 29 novembre ca Anderson noppalu na ci bésub 28 bii ca Los Angeles moom nag nekkoon na acteur principal ci film bu ñuy woowee Black Panther bu doomu senegal boobu di Baaba Maal wéyoon wéyam bu rëy ba Chadwick Aaron Boseman nag cancer du côlon la amee woon stade 4 moom nag da ko doon sooxaale lu toll ci ñeenti at bi muy noppal itam ci ay wetu mbokkam la ko fekk ñu génn États-Unis dugg Sénégal ànd seeg doomu États-Unis boobee juddoo senegal di Akon tàmbali na tegum xeeram gu njëkk ca projet bu mag boobu di Akon City projet boobu nag moom mu ngi siy def ay tabax yu kawe kawe yi nga xamante ne ay dëkkuwaay la projet boobu nag moo ngi def ay dëkkuwaay yu ànd ak jamono foofee ca Mbodiène département bu Mbour. Akon tàmbali combat tàmbali combat wam ca Akon City combat Gris ak Balla Gaye moom dakk na bi mu dakkee itam combat Gris ak Balla Gaye dakk na. ki ko dakkal nag du kenn ku dul Gris Bordeaux génnoon ci ab rajo. wax ni moom doyal na sëkk ci combat bi ndax coow li amoon ci diggante moom ak Gaston Mbengue wàllu xaalis bi bi coow li amee ba combat ba dakk Gaston Mbengue génn daal di wax ni na yàqkat yi bay yàq teg si ni mu ngi sant te wax mu ngi sant tey wax Gris Bordeaux mu fay ko xaalisam ci ni mu gën a gaawee balaa jant soog mu ngook loolu lañ leen indi woon loolu lañ leen indiloon ci ay xibaar ci seen top actu du jour ba beneen incha allah.